à vous alors euh, ba léegi dañuy xam ne dañuy resté ci Ahmed Cissé ci kaawu Doro Gueye ba léegi parce que tamit yëg na ay kàddu jëmale ko ci nga xam ne nii moom mooy Clara. xaritu Nooré ni la waaw jàpp na ni xaritu Nooré ni kay jàpp na ni lépp lu dal maanaam euh, ki nga xam ne mooy Doro loxo Clara jógu ci donc d'après les propos de Ahmed euh, nañ dem déglu ko daal di ñëwaat ci plateau bi gën ko faram fàccee ak ki nga xam ak ki nga xam ne nii moom mooy Nana. problème am yëpp problème mu Doro Gueye yëpp Clara la li ma wax lu garaaw la waaye nag lan moo tax ma wax kalaara la ak wax ci fan laa ko teg soo ma dégloo nga koy dégg Doro ak Clara dañu yàgg am seen ups and down comme couple yëpp Doro Gueye takk Racky bi muy takk Racky ñi demoon amul kenn ku ci Doro bokkal mais séq nañu ay taranga mu tag ko ci farata ak sunna moom Clara bi mu jotee rumeur bi mu yëkkati téléphone woo rakki ci boppam di ko laaj mais xam nga rakki bandi la lu ko Clara laaj rek mu ne ko du man nga war a laaj laajal sa jëkkër bi rakki demee bi Clara deme ba xam ne rakki mii jabar la fiiraange jigéen dugg ko ñu am ay problème ñoom ñaar problème bu jëkkër ak jabar am na benn bis Doro Gueye dafa bëggoon a dem Kaolack waroon na ànd ak rakki keroog Clara dafa xeex ak dooro ba xotti yéreem bi ci biir néeg bi ñu toog dooro mu jul dem Clara xaar ko ba sonn ay rakki xaar ko ba sonn ñëwul mu fomm coowi gendarmerie bi biñ nekkee ci gendarmerie bi nit ñi xam ñoo wax rakki na ko sa jëkkër jàpp neen ko fii mu ñëw taal otoom pour ñëw coow li doonuloon Clara ak Racky xeex amu fa magu Clara pànk bi nga xam ne mooy defante ci famille moo fekk Racky ci otoom bi ne ko yow lan nga fiy def xas ko tuumaal ko gaaf ne ko jigoo ko ko koo dafa dugg ci yow rek ñu jàpp ko wax ko ay bal coow loolu moo fa am ba tey rekk ay dara wàccul oto mu dem bi ñu jàppee dooro Yaxma Cissé yëkkati na ko peut-être euh, fii la ko yemale am na yeneen li nga doon wax si Wally Seck jox na ko maanaam koppar yi nga xam ni koppar gu takku la euh, nee na moom du wax maanaam somme bi nga xam ne nii euh, jox na ko ko waaye Wally Seck bokkoon na si artiste si nga xam ne nii ñoo ngi jàppale bu baax a baax ki nga xam ne mooy Doro Gueye moo xam si wàllu xaalis dem na sax ba si tudd wàllu mystique mais heureusement que Wally Ballago Seck def na leen man sama yaay ak sama papa rek ñoo ma doon ñaanal. donc dem na sax ba tamit umuroo mujj gi ay sëriñ ñëw pour ñu ñaanal Doro Gueye pour mu génn foo nekk wax na tamit keneen ki nga xam ne nii mooy Jahman Express bi nga xam ne nii moom tamit nee moo ngi jàppale bu baax a baax ki nga xam ne nii moom mooy Doro géey parce que nee na chaque jour jabaru Jahman moom mooy tibb añ daal di yóbbu maanaam foofu sa prison ba donc mu doon li nga xam ne nii tamit euh, lu rafet la waaye tamit cas si gën a danse comme ni ko gars yi di waxee mooy Clara. coow net fu mu toll nii bëy na ñu bëri ay yëkkati ay yu nga xam ne nii man je pas xaw fa la ñuy jëlee cadres yooyu noonu que Clara bugg doole ngay génn que Clara lii laa kii laa mu nekk ay cadres yu nga xam ne nii peut-être ay cadres yu ñaaw la est Sénégal des fois tamit duñu xaw a maanaam suñu ay cadres parce que ki nekk si ay torof torof bu dee bay dégg rumeur yooyu si biir kaso bi jàpp ne jabaram moo ngi ñoo ngi ñu koy tuumaay yéen nii est-ce que loolu dina ko neex wala est-ce que loolu dina moom waaw xam nga <laughs> euh, moomoo àdduna moom xam sa nit daa gën ñoox la ko. xam sa nit daa gën. daa gën la ko suñu borom yàlla na ko yàlla defal tawféex te nit ko ba mu dellu si ci suñuy jëm ñun ñëpp yéene neen ko ak ña fa nekk yëpp it. Mhm. Ah, ndax nit nit la ña fa nekk gënu leen. te gënuñ ko itamit loolu yàlla dogal na ko te foog naa moom. Mhm. nit du la taxawu dimbali la. jàppale la nekk ci say mbir ba nga àgg fi nga àgg di ko ñaanal gaaf kon doo nit ku baax. te pourtant barke dem yaa ngi wax fii yaa yi am na ñu nga xam ni nii ñoo ko ñaanal ne moom gaaf la. Mhm. doo nit ku baax. doo ku baax yooyu lañ lay def léegi dafa am ba des moom mun fen weesul ak ñeme yàlla mën a dul weesul yow nga toog ca xaj di nu jéem a wax li xew yow fii. <laughs> te ñun ñu ne fi moomu xaalis duggati na de ñu ne la faralal diw. xaalis duggati na Copper Express génn. waaw waaw. lobby bi gang bi. Mhm. te moom dafa mel ni cas bi rek de eh, da naan fen yi la am duul du benn cas kii day fen waxu dëgg. day lijjanti ay mbiram toog. ma ne gis nga moom de li ma ko xamal barki démb moo ko siiw la ndax nanaa njaay ñaata nanaa njaay fi ne entre parenthèse moo jëlee ñu koy nuyu bu baax a baax démb dañu doon convaincre mais malheureusement xaw ma sax na ko mën waxee il m'a surpris donc maa taxaw mu ni waa Télé Sénégal maa ngi di siiwul maa ngi kontaan si yéen rek laay merci beaucoup grand jërëjëf merci beaucoup contentement bu baax lañ si am en tant que artiste bi nga xam ne moom nga moom nga si réew mi ñun ñuy toog di wax lu ñu neex nga ñu suivre donc yow tamit ñoo ngi lay jaajëf bu baax a baax merci Thomas Momo Dieng borom CAP 21 merci jërëjëf Momo ñaata Aïcha Ndiaye nekk ci dëkk bi Aïcha bëy na ñaata Olimata Waña fi nekk bëy na léegi nga toog di dul sa dul dégg naa Aïcha Ndiaye ba mu waxee ak Amadou Wañ mhm. après ci lañ tasee Café de Rome bañ fa jógee fala lañ si daati bay fekk c'est facile doon benn cercle boo xam ne lobby ngeen bu ñu leen nee fenal leen kii ngeen taxaw fenal ko wax leen ci kii ngeen taxaw wax def leen ci kii ngeen def ci kii pour lan pour pour man diw laay àndal bu ñu ma defalee li nangam sàngam yaaram ak loo mën a xew Clara daa assumé diggante moom. àdduna fii lu mën a xew Clara. digganteem ñëpp a ko xam suufewut ndax kawe ba ñëpp yëpp mhm. waaw waaw làqatuwul de ma ne kalaara làqatuwul man maanaam maanaam duma doon jigéen ñu naan ma ay suuf laa dul def mhm. ñuy tase fenn sama moroom ànd ak yow di xàppi ma taxaw di courage la bara ndax suuf pour lan cagatu oodi mm. feno farata yàlla la dañ la ko war a def mu leer looy suufeel ak kawe takk-takk la ay nekk fii ay dañ ma nii du yooyu yow daal bu dee dëgg nga jeeg piir nga assumé nga keneen ak keneen di jeeg piir man ak lu munti xew joma baale yu koy ci ñeneen ak keneen ak da nga may déglu rek ma wax lii ma la Clara mm-hmm. ñëpp xam ne ni bu dóor a gay dafa leer même bu ko eh ma ni même bu ko yéenee na dee ca kaso ba moom assumé na doon soxnaam bay def ay leneen ak leneen ak leneen ak leneen ñu cee tudd Dóoru Gueye barke déem boo njaay ba avant ñoo ay rafiraay di ubbi ñu koy te yaa ngi fo bi ko gars yi jëlee ba muy def ak moom seede dafa toog di jooy ak rongoñ fa mu nekk na mu nit du jooyee noonu tricher maam day tricher dafa am. waaw bu dee day tricher nit du tricher noonu rongo cay rongo ñi baas ñëpp toog dañu waxante dëgg ñii ku leen di déglu man ñii. ay tasum man du caaxaan tas kër lan munuñ tas sa kër boo xamee ne ay fenkat leen yu bëgg écran aki i toog di wax di melalali lan lan lay def bu la defee dara yaa koy dégg ñii. alors nana fenkat yi waaw ba tey rek damay rejoindre Noreyni ah waaw li mu wax dafa dafa logique nag. non. dafa logique de. man maa nga li wax ni yow ça veut dire am na leen lu nekk si xel loo bëgg wax de mais bu ko wax moo tax nga gisee naan non xam nga rek maa ngi si lu nga bëgg wax wax ko rek. ay xam nga nag tànk waxoo ko dugg jaay bi maa ngi lay nuyu kii a gën gën a seetaan naa fekk kii moo raw kii ñuy seetaan <laughs> yow yaa raw kii ah, ah. ñuy seetaan. waaw waaw. gis naa bu day boo nekk nanaa rek day tëb puuf mais gis naa boo nekk nanaa mu naan oh, am na lu muy xaar si xel bi. si tas a xalaat. léegi nga xam ma rek du nag entre francisme ñun Sénégal lañ dëkk. et que rumeur yoo xamante ni doon na daw. et que moom moo ci mujjee wax pour dire vrai. yaa ngi dégg. li muy wax nii moom moo ci mujjee wax mais juste rek pour wax noo rëy nii dafa wax lu am solo daf nii xam sa nit. moo gën ñu lay woo di la ko wax ay mbiram maanaam xam ki ngay àndal c'est beaucoup plus important xam nga lu tax dañoo tollu ci jamono yàkkante dañoo tollu ci jamono yi xëppante asib si je peux le comme ça dafa am nit ñoo xamante ni ñaar ñu ànd la ñuy bañ a gis et que la plupart ci ñoom lu duufal seeni poos la ñuy wër comme Noreyni l'a si bien dit dafa am ñoo xamante nii dañ naan nóore dina ma fay pour ma yàqal ko Momo léegi naa cos Momo xool est-ce que dégg nga ma mm. bu nóore ni dugalee ay ca fay laal xam ne bu dugalul bu ma jógee ci moomoo dem ci nóore ni yàqu ko lu mel ni xemee sa à dire ñoom gang boo gang bi loolu mooy seen liggéey loolu la et que ñun ñëpp xam nañ ko fii couple yëpp ay xuloo loolu moom duñ ci wax couple yëpp ay xuloo te bari na ci jigéen ñoo xamante ni pour ñëw ci li nga bëgg bari na ci jigéen ñoo xamante ni bu ñu meree dañuy réagir ba pare doo ko doo ko xalaat est-ce que dégg nga ma. bu baax ma bu baax noo rëy nii. waaw parce que da ngay réagir doo ko xalaat. dama ne bari na ji non billaay lu sérieux laay wax. ma xam bari na jigéen yoo xamante ni dañuy mer def li ñuy def ba pare riccu ko parce que ci kaw mer lañu ko defee néew ma nag. c'est le cas de Clara et Dora mais loolu parenthèse la bu ma doon ubbi dafa am ñu mel noonu mais san ne veut diir dire moom moo def walla moo fexe ba Dora Gueye dugg kaso gis nga Clara dafa xamal léppam léppi Dora Gueye da koo xam Dora Gueye xam léppi Clara maa la ko wax de est-ce que ma hmm. maanaam du lu may làmbatu nii di ko waxantu nii c'est normal parce que. déggoo ma de c'est c'est très normal parce que jëkkër ak jabar lañ mais bari na jëkkër ak jabar yoo xamante ni kenn xamul sama romul. ba pare yàlla nattu leen ñoom ñaar am lii link. waaw. doon ay am link. waaw parce que dañoo xamante ci showbiz. Mm-hmm. te booy seet Clara moo njëkk a. siiw siiw ka Doro Gueye. bien pour dire mais Doro Gueye mënal Clara. lu ko kenn mën a lut wala la plupart luñ ko mën a lut moom it mu mënal ko lu ko lu ko ñenn ñi mën a lut pour dire c'est-à-dire com nan lañ ko waxee sax compli complémentarité la voilà de la complicité mm-hmm. maa ko ci yokk est-ce dégg nga ma kon ku ci wax ngala na nga ci wax loo xamante ni bu ëllëgee doo sëgg d'accord mais ñii moom mën miin nañu gàcce. parce que genre gii nii. miin nañu gàcce bàyyi ma ñii ki nga ki nga fi nga appoo tey fi nga ki nga appoo tey bu ñu weesoo fan yee nañ xoolaat da nga ko taakale. acca nañ dem si cas bi nga xam ne nii Sénégal yu bëri peut-être bàyyiwul si xel mais comme que ñun ay bàyyikatu xel lañ muy kii de sax Cheikh mais même fekkee sax euh, la majeure partie am na ñenn ñi nga xam nii ba léegi tamit ñoo koy waxtaanee parce que.